Assalamu asalaamaaleykum mbokk internet ci Dakar Tay ñu ngi leen di dalal seen émission au-delà des apparences ñu ngi dalal Dieyna Baldé Ñepp gën ko xam ci Dieyna dañ koy wëcc mo présenté wu ñu ñëw waxtaan ak mom. Dieyna na nga def. salaamaaleykum ça va naka mu yaa ci jàmm Ma ngi nuy sénégalais yëpp ak samay fans ak samay mbokk di la jaajëfal ci invitation bi. d'accord Dieyna tey nekkatoo ku ñuy présenté dans le monde de la musique Ñepp xam nañ la. récemment ñu gis ne ñëwaat nga ak ñaari single yu bees ñu bëggoon rek nga ñëwaat tuuti ci reprise Ablaye mbay bi d'abord balaa ñuy ñëw ci bu mujjee bi dina baax bi nan la demee. walla comme li nga wax rek Ablaye Mbaye dafa nekkoon nit koo xamante ne ku manqué dafa marqué empreinte am en fait fii si musique sénégalais yàlla def mu teel a décédé donc ma bëggoon rendre sama yaay omage ma ne pourquoi pas aussi ma jëlaale son hommage aale ko en Les ma comme nice après sénégalais beug ko c'était pas prévu nak. bi ma ko defee ñu beug ko bi waron genn aussi mu genn parce que lépp sama comeback la bok. voilà parce que li ma tok yàgg na donc dama wara ñëwaat ak force. retour en force bi dafa melni xaw nga ko non pas xaw nga ko sax réussir nga ko parce que gis nañ xalé tamit ñu ngi TikTok son bi. Mhm. après nga teg dina baax bi def ko clip et tout yaa ngi def actuellement sa tournée est-ce que euh, kii bon préparatif en tant que jeune maman da nga un bébé mm-hmm. ñu gis na yaa mm-hmm. plateau yi. Mm-hmm. mais bon santé parce que man famille dañoo nekk ma voilà donc les ma yor parce que nous dañ donc su émission interview dama koy sans problème voilà. léegi quant yi ak kii sénégalais yi mooy loolu xam nga ñoom lu neex dañ koy bëgg te ñoom dañ maa bëgg dañ may soutenir te damaa bëri fans macha allah donc mooy loolu nañ gën a supporter nañ gën a partager rek. d'accord ñu gën a supporter balaa nit yi supporter ñu ñëw ci production bi kan moo lay produire. Euh, maa ngi liggéey ak Bril classique musique la tudd labelam bi maag moom ñoo collaboré voilà label bu bees la donc mu ngi recruter ay artistes samay moroom. mais man maa fay ambassadrice d'abord maa fa njëkk a signé. d'accord kon yow Bril instant bi moom moo lay moo lay porté. réseaux sociaux yu ñu gis ne léegi euh, tremplin la. pour am li nga bëgg. sa tey sa statut yi chaque jour bu ma koy xool damay gis nga naan like leen ngeen partagé. et tout ça. milieu boobu noonu nañ nga ko gisee actuellement réseaux sociaux yi yow jaar fa pour am li nga bëgg yomb na wala moyen classique bi comme dem ci plateau te yi ñëw fii. Ah, yëpp am na ñoo xam ku nekk ak li nga choisir pour suivre am na ñoo xam ne YouTube lañ gën a nekk am na ñoo xam ne si télé yi la am na ñoo xam ne tamit ci yeneen site la donc euh, yépp daal boo mënee am yëpp dina dina baax boo amul yëpp tamit nga jéem a am yëpp. <laughs> en fait. si di non xam nga nit yi léegi dañuy privilégié. waaw ñu bëri tey comme bu ñu génnee benn son dañuy dem si ku mel ni Faidara par exemple. Faidara mm-hmm. pour mu TikTok ko mu jàll. Mm-hmm. automatiquement ñëpp dañ koy reprendre ñëpp dañ koy xam. Mm-hmm. yow TikTok am nga fa sa page bopp. xëy na demoo si ñeneen ñi côté boobu laay waxee quoi wala nga soit nga dem ci télé génnee morceau bi nga ne leen damaa génnee sama morceau moo ngi nii dama bëgg ngeen jàllaleel ma ko xam nga yow xale nga. forcément da nga am boo xamante ne moom muy gën a adapté wu. Mm, mais man ñi may liggéeyal. ñoom link yëpp presque am nañ ko donc bu génnee te tamit am na ñoo xam si télé yi dañ maa bëgg su génnee ñoom ñoo koy téléchargé seen bopp teg ko seen télé yi man du ma def yenn démarche yi bu bu dee kanta site yi la wala yenn yenn site ñoo may woo ñeen di tamit sam ñi may liggéeyal ñoo leen di woo comme ça ñu ne leen jéenaa génne na lii ak lii ak lii après ñoom ñu xool na lañ ci jàppee voilà man xeebu ma ñu benn d'accord léegi yow ay single rek lañ gis na ngay génnee album bi la toll waaw man xam nga bi ma commencé musique yàggul benn single rek laa fi defagum donc projet album bi mu ngi ñëw mu ngi ñëw mais bon du ma ko yàkkamti parce que euh, musique jarul yàkkamti te album tamit doo ñëw noonu nag def ko nii nii nii il faut d'abord nga am loo wane d'abord balaa ngaa def album moo tax maa ngi ci single yi su paree après ñu album bi tegu si. kon fi mu toll nii yow laa laajagoo génne album. si ñu ngi ciy liggéey mais mënul génn léegi d'abord. sénégalais ñoo ma war a ñoo may buñ ma mayee fit rek mu génn. dama fit instant bi non am naa fit mais des na parce que xale laa dama yàkkanti damay def nànk rek. clip baabam bi dañ ko supprimer woon léegi ban chaîne YouTube la nekk danga am sa compte personnel. am naa sama compte dinañ ko fa dugal xam naa temps yi rek parce que dafa am quelques réglages yu ñu nekk di def donc suñ ko defee dinañ ko dugal foofu noonu. depuis ñu supprimer ko ba tey nekkaatul ci YouTube. si si si am na yenn site yu ko reprendre dugal ko am nañu ko mais man dugaluguma ko sama chaîne YouTube mais dinañ ko dugal bientôt comme sa gars yi mën ko dem foofu xool wala télécharge. d'accord yaay nga xale nga yaa ngi ci monde boo xamante ne xëy na mën nañ ne dafa xaw a doy waar. Mm-hmm. production yi xam nga li fa nekk. Mm-hmm. Euh, showbiz bi tamit am na ay réalité am yow nan nga koy dundee xale nga ko ndaw nga te mm-hmm. yaa ngi si yoon. est-ce que amul ñu lay jéem a créer ay problème wala di la chantage wala wala Dieyna mo dundul yoy actuellement. non lolou du ñak xam nga bo nekkee si milieu ak ci lo mënti nekk sax nga nekk jigen xam nga amna ño xamantene du intention bu baax moo tax ñuy ñew ci yow amna ño xamantene nak intention baax mooy tax ñoo ñëw mais man mom ça va sante yalla man ko gérer dal man ko gérer ak sama entourage man ko gérer man sama jëm bop instant bi gisaguma d'abord. ñoo xamante ne dañoo ñëw pour yàkkal ma wala di ma chantage wala dara parce que xam nañ ci li ma jóge donc mooy loolu. boo ko gisee nan ngay def tey parce que quoi qu'on puisse dire. Mm-hmm. xëy na doo toog fii di ko wax. comme mm-hmm. nee nga am na si loo jógee. Mm-hmm. peut-être mën nañ ne loolu mën na nekk am na ñoo xam dañ koy gisee benn porte d'entrée. pour yaakaar ne suñu ñëwee ci yow yenn yi mën nañ fa jaaree pour defal la dara wala ñu créer la dara. waaw nee naa la loolu day am. am na sax day am man am naa am naa caractère boo xamante ne si man am na loo xam ne dama ko imposer si man en fait donc même boo amoon intention boobu noonu boo ñëwee si man doo ko wax loolu moo tax man la <laughs> maa ngi koy gérer. kon ku ñëw daal doo ko may dara. non bu dee lu baax moo tax nga ñëw dinañ def lool li li nga bëgg ñu liggéey ci après nga dem ma dem mais bu dee lu bon moo tax nga ñëw boo ñëwee doo wax. yaa ngi def ay ba tey. waaw bien sûr terminal laay def ren te maa def formation aussi. Dieyna yaa ngi def terminal. yaa ngi waaw yaa ngi def formation. yaa ngi nekk maman. yaa ngi def sa ay tournée loolu nu mu mënee nekk. ah mais lépp yow yow tey nekkoo ci lii rek n'est-ce pas. Mm-hmm. du yaa ngi laal fii laal fii di def ay say activité man sama doom maa ngi ak sama famille ñoo koy téye li ma li ma xam sax bëriwul yaa ngi comprendre. donc musique bi tamit benn temps la rek chaque jour chaque jour doo occupé doo nekk si ay plateau wala ay affaire damay dem sa damay dem jàngi damay def sa lu li may def parce que jàng bi léegi yomb na yëpp en ligne la rek. <laughs> maman 2 point 0 nga bokk quoi comme xale yi léegi. waaw toog sa kër nga gérer yëpp quoi. gérer gérer bi gérer lépp waaw non non loolu su ma nekkee kër ga damay mel comme ñëpp damay nekk ak sama famille nekk sama doom xam nga mais aussi su ma waree liggéey ñoom xam nañ loolu dañ may noonu ñoom sama man sama liggéey sama famille laa ci àndal voilà ak sama producteur muy Bril aussi mu jàpp si bu baax baax baax baax voilà moo tax sonn ma daal. d'accord sonn Covid 19 bi moom artistes yi sonn yow bu nga ci wax ak mesures yeeg yooyu noonu. waaw tëgg spectacle et tout. waaw ñun ñëpp fii ku nekk artiste fii nii genre moment yi da ci profité da ngay def ay concert soit wala ay prestation wala ay tournée mm. mais ñëpp la impacté may ñaan yàlla rek mu juge fii xam nga ñu respecté mesures yu ñu jël ñu xeex ko mu juge fi daal ndax ñëpp am jàmm. non bokk naa si sax mais xam nga loo gis peut tamit ñoom du ñu jël mesure yooyu noonu rek nii nii nii pour jël ko nii pour nii parce que du artiste rek la yàkkal ñëpp la yàkkal instant bi donc man damay respecté loolu. tey xale nga bari na ay xale luy roy si yow. Mm-hmm. xëy na bëgg nañ nekk woykat. Mm-hmm. xëy na ñu ngi jàng boo amoon message boo leen di lancé tey lan lay doon. waa ñu fonk seen études yi jàpp si bu baax ñu xam ne fii si àdduna bi boo jàngul doo am dara même boo mënee woy am talent xam nga. jàng rek moo lay yóbbu euh, yenn niveau yi donc ñu lu jàng bu ñu bëggee musique tamit am na école musique yu fi nekk ñu dem jàngi ko ba mën ko après ñu continuer musique ak lu ñu mënti def daal nañ privilégié privilégié seen jàng voilà man loolu laa leen di ñaan. temps yi passé nekkoon nañ ci 16 jours d' yoo xamante ni dañ ko jagleel violence faite aux femmes. Mm-hmm. xëy na moment donné tu n' étais pas violentée mais doonoon nga feesoon nga ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. té loolu mën andi peut-être ben forme de violence bo xamante ne ni psychologique quoi ndax nit ñi ñu doon wax ñi ñeneen ñi di wax leneen. Mhm. yow tay bo amoon message boy lancé xale jigen yi xamantane elles sont victimes de viol wala de chantage wala elles sont de victimes de violence physique ñu leen di dóor wala leneen lan lay doon. waaw comme jigen rek ah parce que violence mom dafa metti ci côté bu nekk nak mhm. mais na na nañu xolaat bu baax li ñi def jigen parce que jigen moy yaay budul dara. àdduna bi mënul dem sans jigéen donc nañu xolaat bu baax a baax li def jigéen ñi ma leen di ñaan aussi képp koo xam ne jaar na ci genre affaire yooyu noonu nga delloo sa xel si yàlla te xam ne lii yàlla daf ko bindoon sa destin fa lekk nga jaar par force nga gën a am ful la gën a am fayda sa avenir xam nga xool leneen voilà. dund sa dund quoi. voilà yéen nan nga def ba passé période bu metti boobu nga dundoon sa àdduna qu'est-ce qui t'a boosté à dépasser tout ce stade laa ba tey nga ñëwaat toog fii. waaw gëm yàlla rek. Ah, gëm yàlla rek ak gëm li ma yëkkati woon ak sama famille sama yaay surtout voilà le fait que ma koy gis tout le temps mu am lu mu def si man ak sama famille ak sama entourage ak waa Kolda xam nga ma xam ne ni que xëy na man sama bos moo feeñ sama bos moo siiw rek man na ma koy sante yàlla mais am na ñoo xam ne mënuñu amuñ fu ñu ko waxee ji donc man sant yàlla bu baax rek noonu laa ko dundee xam ne yàlla la après mooy loolu mu passé tamit ak jàmm ak salaam.

am feeling xam nga Viviane boo koy déglu dafa am feeling moom dafa mën way ba pare dafa xam ni temps bi di doxee donc loolu rek loolu rek moo tax ma bëgg comme fans yëpp xam nga am na ñoo xam ne dañ maa bëgg ba man tamit noonu laa ko bëggee woon ba ma ko ba léegi sax. Viviane may leen dara noonu nit noonu ngay mel. ah ñun tam ñoo ngi ñëw de. gis nga génération bi fi nekk. Ah. ñoom laa ak ñoom. <laughs>

Hmm, Abiba non non dégganteeguñ dégganteetuñu ah. la moo tax la moo tax déggante wala. dara temps bi la rek. mais xam naa suñu waree déggante dinañ déggante. loolu du de. Hmm. la moo tax. non nag ma lii moo tax dégganteetuñu <laughs> histoire fi am yow yaa ko wax ah. jàpp nga ne nee nga ndogalu yàlla lu waroon la am am na jàll nga. Ah. la famille. qui hmm. t'a supporté. et qui t'a aidé à donc tay dina jall jàll non lol ci la wara bok ba yeen ñaan ngeen melat xeyna ni ngeen mel. xam nga yow am nga say xarit ak say nit yo xamantene xamanté ngeen. inshallah bu bu moment bi ñu yéré dañ koy def fi ñun dañuy way di day way may way n'est-ce pas donc buñ ko waré def dañ koy def. d'accord merci beaucoup. Dieyna la moy sa dernier mot. waaw di nuyu aduna mm, yépp di nuyu samay fans wa Kolda bu baax baax baax baax sama région sama ville natale di nuyu wa Dakar aussi.